6 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés et un cas contact suivi par nos services. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et à Ziguinchor est stable. À ce jour, 105 cas ont été déclarés positifs, dont 9 guéris de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict sociale jot na résultat examen yi nga xam ne moom lay weccoog yéen ci téeméer ak fanweeri test juróom benn positif ne ci juróom benn yi juróomi cas importé la benn bi nekk contact boo xam ne suñu service yi ñoo ko doon suivre malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé Dakar Touba ak Ziguinchor ñu ngi am tan ci bësu tey bi dalee ko ñaari fan ci weeru mars am nañu Sénégal téeméeri téeméer ak juróomi cas yoo xam ne détecté nañ leen ñu positif ci téeméer ak juróomi cas yooyu juróom-ñeent wër nañu ba génn juróom-ñeent fukk ak juróom benn ñoo nekk ci ci hôpitaux yi ñu leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi pour ñu wéyee tegtal yi nga xam ne ñoom leen di jox ñoom di jox bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.